mu jóge ba Thiès ñëw fii ngir wàccaay bis bi ñu bëggoon ko laaj kàddu yoo xamante ni nan leen waajal bis bi nga xamante ni mooy am fii ndiki suba bis boo xam ne lépp ñu ko leen nuyu a baax ak ngi leen di fay bu baax te di leen siyaar te di leen sant ci taxawaayu rafet yi ngeen am ci bis yu mel nii ñaan sëñ Tuubaa yàgg leen a defal tawféex ba leen ak jàppalal bu baax bis yu mel nii moom wàccaay yi moom ci saa yi rek ci baatin rek lay am ndax kenn ku ne xam na ni wàccaay yi dara jiitu ci lu dul xéewal yi nga xam ne moom la mbokk taalibe yi di fi xéewloo kenn ku ci nekk nga jàpp ci loo man ci sa doole wala ci sam xel wala ci sa alal loolu it dina tax maanaam lépp mën a woyof ci bopp sëñ Abdou Lahad Abi mi nga xam ne moo ko woote ndax buntu jariñu rek lañ ubbil ta kon ku bëgg a jariñu ku nekk maanaam loo ca ñaq wala ko ci xam na ni sëñ bi moo lay fayal boppam beneen bi ci des maanaam rafetal yéene yi ak raxas xol yi ak tuub bàkkaar yi ndax xasida moom képp ku ci jëm maanaam ni ngay seetale say yéere ci kaw sab xolit noonu nga koy laabale ngir taataan ci ay leer moom daa mënut a dugg foo xam ne maanaam barab bu tilim lay doon ndax sëriñ bi xajut ak lenn fenn comme sëriñ Tuubaa nag la ñuy teewlu ci sunu xol ak sunu ru ak sunu pas-pas ak sunu xel ak sunu lépp kon ñoo xam ne nag jëmmi borom Tuubaa ji la ñuy fekki si moom la ñuy teewlu moom la ñuy wut si nag eh, làmbooy teggin yoo xam ne dinañu mën a may ñu mën caa am lu néew néew rek dara ci wàllu yar ak ay teggin ak i tamit maanaam sàmmook xaside yi ci li laaj ci wàllu laabug biir ak laabug biti ak kenn ku ci nekk boo ñëwee nga bañ a mm, càmbal càmbal yi te xam ne lii la fi tax a jóg ku nekkul ci xidma yi ci eh, wàllu liggéey bi nga xam ne eh, yëkkati xaside wala durus ko wala déglu ko rek moo la jóg te yooyu it ku xam na ni mënut a ànd ay dugg génn waaw te yow la xaside moom toog déglu la laaj ki jangit jang ta baña dugg ci leen laaj ki deglu it lool rek la laaj kon jeerige jeuf sant nañ bu baax baax alhamdulillahi alladhi yusalli ala an-nabi muntaqal musalli